Euh, jërëjëf ti mbokk yi ba léegi rek ñu ñëw ci jafe-jafe yi nga xam ne ndoxu siti daf koy indil nit ci wàllu dundam lii bokk na ci yenn màndarga yi nga xam ne fës na feeñ na ndax ki ngay génn séen ni dafa am ci lenn loo xam ni daf ko allergie woon muy yére woo xam ni daf ko doon sol solin wi méngoowul ak der wi mu bàyyi ay njeexital ba saa su ne muy wokkatu wokkatu googee dem ba mu yàgg mu commencé indi jafe-jafe ci beneen wet gi seen cabinet Biorahma ànd ak moom ak gaam bi daal di ko jox mu naan daal di ko jox saabu mu sangu daal ko jox crème mu diw daal di jox huile mu diw bi mu ko defee suñu borom dimbali ko bala mu ci doon yëg lépp mu dej loolu moo tax ñu war a indi preuve bi wan la ko nga di yow mi nga xam ne yaay dund li ni mel nga xam ne lépp lu borom bi indi rek am na luy saafara ak rax ma yaa jëf Euh, jërëjëf ti mbokk yi ba léegi rek ñu ñëw ci jafe-jafe yi nga xam ne ndoxu siti daf koy indil nit ci wàll dundam lii bokk na ci yenn màndarga yi nga xam ne fës na feeñ na ndax ki ngay génn séen ni dafa am ci lenn loo xam ni daf ko allergie woon muy yére woo xam ni daf ko doon sol solin wi méngoowul ak der wi mu bàyyi ay njeexital ba saa ne muy wokkatu wokkatu googee dem ba mu yàgg mu commencé indi jafe-jafe ci beneen wet bi seen cabinet Biorahma ànd ak moom ak gaam bi daal di ko jox mu naan daal di ko jox saabu mu sangu daal ko jox crème mu diw daal di jox huile mu diw bi mu ko defee suñu borom dimbali ko bala mu ci doon yëg lépp mu daj loolu moo tax ñu war a indi preuve bi wan la ko nga di yow mi nga xam ne yaay dund li ni mel nga xam ne lépp lu borom bi indi rek am na luy saafara ak ma yaa jëf